arrestation ak libération un peu tard dans la nuit bu kii di Adama fay nekk frère ci ki nga xam ne moo fi nekkoon ay jamono soxna su njiiti réew euh, di Mariam fay Sall euh, loolu tamit dinañu ko waxtaanee ci jotaay bu nu mel euh, ci littoral bi coow li fi amoon ak décision bi ci président jëloon commission ad hoc bi ñu taxawaloon liggéey ba mu def ba jël quatre-vingt-un dossiers daal di ko jébbal président de la république loolu lépp ponk la yoo xam ne am nañu yéen waxtaanee ko ci jotaay bi bu ci yàlla àndee alors Abdoulaye yow laay dooree. ñu dooree ko ci euh, mbirum presse euh, gis nañu keroog talaata gannaaw coow li nga xam ne judd na fi entreprise yu entreprise de presse yu bari nekk ci ay difficulté ñu noonu dañuy amal une journée sans presse mm. ni ki talaata yow nga nekk un journaliste analyste bokk ci euh, kuréel gu nu mel muy la presse ban jàngan nga ñu mën a defal ci journée boobu ak taxawaayu taxawaayu presse bi. bon mm, jërëjëf sëñ Babacar Euh, d'abord bu ñu desee sur les principes rek mhm. euh, bañ a andi kii moo am dëgg kii amul dëgg ndax jaar na yoon bu ñu mhm. njëkkee ñëw si premier principe bi mhm. dañu naan ndaxam journée boobu am na solo si ñi ko topp waaw da nga naan waaw am na solo si ñu ko topp lu tax euh, boo gisee nen danga nga naan nen a ngi nii boo xoolee par rapport au nomb di topp journée bi si li nga xam ne moo la ñu xayma di topp xëy na amaana moo ëpp tey jii bu ñu xoolee nag si wàllu quotidien si wàllu télé jëlu ma nag télé yi nga xam ne ñoo nekk si TNT bi parce que biir TNT bi tam bari na ay télévision bari na ay télé yu bari bari bari mais ay la yoon li nga xam ne daal moom la ñu jàppagum si si lu ñu gën a ràññee si presse bi nombre boo koy xool euh, li topp moo ëpp waaye topp topp moo ëpp il faut tamit ñu jàngat mbir mi journée sans presse bi jar na ko war a jaru ko woon euh, yoon la woon wala wala wala woon du wala woon euh, du woon yoon jàpp naa ne nag lan moo di problème bi euh, problème bi nag bu du àndee li nga xam moo di communication orienté ko si li nga xam ne mooy euh, bafoué ñu lañ dañoo bafoué liberté. Euh, presse taskatu xibaar yi mm-hmm. liberté presse bi foofu nag moom dafay xaal xaw dafay xawal di day waar parce que fu fu ñu toll nii Sénégal mm-hmm. amul benn journaliste bu ñu persécuté amul benn journaliste bu ñu tëj amul benn journaliste boo xam ne convoqué nañ la si Mali foro comme ni ñu ko gisee yaa y mois ay journalistes pour un rien ñu jël leen leen prison. te y avait pas de journée sans sans presse euh, ñu bëri si si si si si si si mbokk yi jóguñu woon xeex autour de la coordination des associations de la presse mhm. euh, je crois bien que le monde combat avait été mené et à juste raison par rapport à des positions de principe liées au soutien boo xam ne war nañ ko am si mhm. suñu confrère wala concert jàpp nañ fi journaliste sous le prétexte fallacieux sous le prétexte fallacieux mhm. de amoo carte de presse nationale sous un prétexte fallacieux te dénoncé wuñu koon jamono joojee dénoncé nañu jàpp nañu fii yeneen journaliste muy góor muy jigéen yóbbu leen prison pour des raisons yoo xam ne tënkuwul si li nga xam ne dara du si dëgg effectivement donc bi ñu doon mën ne combat bi marche nañu fi def nañu fi lu ne euh, def nañu fi ay ay veille nocturne et tout euh, gis nga ni effectivement am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi yëkkati kàddu di am ñuy waxo am nuy ñuy kaase am nu ñuy yooxu te démboo bërki démb ils essayaient eux-mêmes d'enfoncer ces confrères ou consoeurs qui étaient embastillés donc loolu moo di dëgg loolu moo fi nekk maintenant def nañu journée sans presse lu tax ñan nañu l'État dafay poser ay conditions comme su ko bëggoon nërmeel entreprise de presse yi. Mhm. defe naa ni su boobaa nag ñëppay ñëppay taxaw waaye nag aujourd'hui quel est le problème le problème c'est le problème. quel est le problème le problème c'est le problème et le problème c'est quoi. Mhm. mooy est-ce que yoral est-ce que war ngeen war a mën a waxtaan pour état xool nu mu leen yomal yollamalee li nga xam ne moom ngeen ko yor war ko fay ñu ne waaw est-ce que tey jii nii amul fenn foo xam ne boo leen fa jaaree di ngeen mën a wax ni yéen a am dëgg ñu ne déedéet amul fu ñu mën a jaar fu ñu mën ti jaar dañu naan yéen a amu leen dëgg yéen yoral euh, état donc foofu lan moo jiitu dialogue lan moo jutu création de de position de conciliation pour mën a jëm si li nga xam ne effectivement dina tax Euh, jàkkaarloo mën a am pour ñu trouver de solution durables mais tey jii nii euh, bu ñu ñëwee ñu xool ñu naan la sur 42 quotidiens nangami quotidiens ñoo si jot a génn mais je di encore fois benn quotidien rek bi jot a génn ëpp na crédibilité fukki côté ci juróom yoo xam ne ñu nga foofu. génn waaw parce que tamit xoolal ñan ñoo nekk si yenn quotidiens yi du mën a ñëpp parce que am na quotidiens yoo xam ne xam nga leen. c'est des journalistes ay responsables. et qui sont véritablement dans le traitement responsable de l'information ay lay woon am na ñoo xam ne dëmb ak bërki dëmb damal xool seen ay une dama xool lañ doon bind dama xool kañ nañ doon xas damal xool nañ doon saaga dama xool nañ doon jiiñ damal xool ñu doon tam aujourd'hui c'est eux qui sont dans la transhumance éditoriale tey ñu ñooy tagg ñi fi nekk ils sont dans la transhumance éditoriale ah bon ah oui c'est de la transhumance éditoriale parce que ils ne sont pas dans véritablement ce qu'on appelle le journalisme c'est du sambay mbayanisme informationnel. dañoo adapté wu ci ci ci ñi nga xam ne jëm adapté wu mais am na fi ñoo xam ne tey ñi ngi ñu nañ ay ay ñoo ñoo yore ay journal promoteur wala ñu yor ko alors que c'est d'anciens mais bu ñu déggee. ñu ñu condamné leen ñu nekk ay ay multirécidivistes nga xam leen ràññee leen ñëpp xam leen. léegi ñu ne ñun non non journaliste n'en parlez pas c'est tabou. Euh, au nom de man damay yeew rek euh. ubbi si bopp koñ bi fii benn atelier couture ma ne la gis nga nee na Aïcha su ma joxee touché am ko suba mu yóbbu ma dikk parce que dinaa ko ñawal ndoket boo xam ne jamono Soundiata Soundiata Keita parce que c'est pas xaw ma ko mënuma ko minuma ko loo nekk da nga koy fois loo nekk da nga koy jàng mais bu fekkee ne da nga ñëw buruxlu da ñëw buruxlu si métier mm-hmm. def ko yoon boo xam ne en réalité da ngay créer de la pression pour mën a jot pour mën a am pour mën a jaay en réalité tu fausses tout da nga xamuloo luy éthique ak déontologie parce qu'on t'a pas formé à ça. tout à fait alors mais suñu déggee nga wax Abdoulaye dafa mel ni la presse ñoom ci seen bopp sax nangu nañu ne dafa am lu ñu yoreel état bi war koo fay bokk na ci impôt bokk na ci redevance yi nga xam ne war nañu ko yóbbu fee ci ci TDS dàquñu ko. mais xëy na anam bi ñu leen koy laajee peut-être moo xaw a jafe ci ñoom pour ñu fay ko est-ce que bu fekkente ne loolu moom mooy le vrai motif ni ñu demee c'est-à-dire euh, stratégie bi nga xam ne demee nañ ko di def euh, journée sans presse annoncer boycotter les activités du gouvernement est-ce que c'est le bon moyen pour maanaam solution mën a am ci li nga xam ne mooy seen ah jafe-jafe xam nga encore une fois kuy dem ci guerre moom mooy xool stratégie bu muy demee. da gis nga am nañu ay confrères ay conseils yu bind ci réseaux sociaux yi. je cite au passage parce que sama sœur la Aïssata Ndiaye. Mhm. texte bu mu bind nee na ça l'exemple ne concerne pas les journalistes. Mhm. rappeler na les véritables combats. tout nga xam ne jar na journée sans presse mooy la précarité euh, des journalistes mooy le non respect de la convention collective. mooy li nga xam ne mooy ñi nekk ci kër yéenekaay yi pendant dix ans pendant quinze ans ils ne ils n'ont pas de cotisation sociale ils n'ont pas de presse ils n'ont absolument rien tey jii le véritable combat mooy ceux-là qui touchent par par par semaine ou par mois ay des sommes dérisoires c'est le véritable combat le véritable combat aujourd'hui c'est véritablement aller dans le sens de créer les conditions euh, d'un d'un d'un am benn benn plan défini boo xam ne sur le plan économique dina viable pour les entreprises de presse un modèle économique tey jii loolu moo di xalaat gi loolu moo di wax li moo di coow li mais tey boo koy xool ñu def ñooñu am na ñoo xam ne par position de principe la ñu demee si li nga xam moo di journée sans presse position de principe parce que dañu ne combat la duñ ko war a mën te ñun ñëpp war ñu seetaan entreprise de presse di nërmeelu. parce que entreprise de presse bu nërmeelu c' est des pertes malheureusement mais si biir loolu tamit am na ñoo xam ne demuñu si dañ see dem nii rek parce que itamit dañoo faroon démb fenn contre tey ñi fi ne. te dañ ko fësaloon si seen bind dañ ko fësaloon si lépp li nga xam ne dañ ko doon doxalee gis nga am na ñoo xam ne si quotidien yi jamono yeew yee ñoo fi njëkk a titré Abdoulaye Diouf Sarr a gagné fii à Dakar mhm. ñooñu am na ñoo xam ne tiitre nañ fi Diouf saar am euh, na Amadou Ba gagne au premier tour premier tour tout à fait et c'est dangereux en termes de délivrance d'information c'est hyper dangereux mhm. te dañ ko minimiser chez nous c'est une pire forme de manipulation des masses te loolu moo gën a dangereux si dëkk parce que lu mu mën jural dëkk dafa doy waar. donc yooyu yëpp nag il faut ñu bàyyi ci xel. pour xam ni euh, ku si dugg pour si dividende politique yaay sonal sa bopp parce que doo ko ci am parce que booy ñëw jàpp ne journée sans presse bi la. Mhm. ok daañu ko daañu gis nañ ko sur le plan international mais boo gisee média euh, maaxu média étranger lu ñu si bind dañ ne journée sans presse pour lan parce que kër taskatu xibaar yi dañooy dañuy jooytu pression bi état di exercer si ñoom si si li nga xam ne moo di wàllu wàllu fiscalité xam nga loolu dafa leer xam nga dugguñu si ay bafoué liberté hmm. dugguñu si si ay bafoué démocratie dugguñu si ay nangam-nangam considération yi fii nga koy déggee considération yi fii rek nga koy déggee. et puis loolu ñu koy wax sax duñ la jox exemple. non non non amul loo xam ne duñ la wax ni fii lañ ñu hmm. tooñee. Hmm. moo tax il faut quand même ñoo xam ni euh, journée la organiser nañ ko. tey jii nii par principe da siy bokk par principe da nga siy ànd mais encore une fois dañ ne journée sans presse la ça concerne qui les journalistes ceux qui travaillent dans les entreprises de presse. tout à fait euh, carrément jëm si li nga xam moo di collecte traitement ak diffusion de l' information donc il faut quand même que ñun suñu wàll bopp ñu xaw a dépassionner les choses ñu xaw ko dépassionner un peu parce que. quand on voit yenn yi on se dit que c'est l'éclipse de la raison en réalité et c'est le triomphe de la passion. <laughs> d'accord voilà. alors euh, Mako euh, soo dégg Abdoulaye mu wax dafay mel ni sur toute la ligne l'État n'est fautif en aucun cas kon lan moo nekkoon importance ak tamit impact journée sans presse boobu ñoom. xam nga man dama ko dama ko suivre xam nga man je suis pas journaliste. Mm-hmm. c'est vrai que j'ai cheminé. durant presque quinze ans avec les journalistes. mais hmm. je me prétends pas être journaliste. mais dafa am loo xam ne dama ko xool ci journée sans presse mu doon ay remarques yoo xamante ni sincèrement il faut que ñu wax ci xam nga man pour man.